بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسني الأقدار يلاو tey jii ci àllarba ji yemook ñaar fukki fan ak ñett ci mois de septembre atum 2020 dëppook juróomi fan ci mois de safar 1442 Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général kullu murid jox taalibe yi ndigal ngir ñu yeesal barab yi nga xam ne ca la ñu ñooy way dawli yi ca Baqiya ca Touba askanu Touba nag daati bàyyi ko fu ñu mën a ne daw jamali fa nga xam ne mooy Baqiya ngir yeesal li nga xam ne mooy barab yu sell yooyu fi way dawli yi tëdd nag askan daan na koy bay kenn ku nekk ci ñoom indi jëm ci waayam moo xam mu jëm ci wàllam gopp brouette ak oto yi nga xam ne ñooy saf mbalit mi di génne lépp rek ci bàyyi xel li nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel li nga xam ne mooy way daw lii ndax kat alxuraan nee na kullu nafsin saa yixatil mawti ba tax na kenn ku ne daal daal nay jëfandikoo ndigal li nga xam ne Cheikh Amadou Mountakha joxe na ko ci yeesalaat barab yi sell yooyu doollee di ñaan ci barkeb Serigne Touba barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne ñu tëdd foofu yàlla su borom dool leen leer tas ni seen barke ci barke borom Touba ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلب بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سريا يا قدوس متليا عني وعن كردي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي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 jabaaru doon na li xam kulal daa bila si lixtar tax yàllaaw